procès Ousmane Sonko Adji Sarr ñu ngi ko euh, ñu ngi ko prévoir au euh, dans une semaine le 1er juin euh, tey Ousmane Sonko def une sortie boo xam ne elle est très différente de sa euh, de sa dernière déclaration bi mu def à Ziguinchor avec Pierre-Edouard euh, foofu on avait retrouvé un Ousmane Sonko euh, voilà qui a renoué avec l'humilité avec moins d'arrogance un Ousmane Sonko d'avant la présidentielle mu wax sax ba ci ay kàddoom naan moom jàppalul Macky Sall dara mais tey il a invité les jeunes de Ziguinchor à le rejoindre à Dakar dina day ñëw Dakar il a dit que le combat final ce sera à Dakar bu ñu songee Macky Sall balaa 18 heures ñu pare ci moom il va organiser une caravane de la liberté mu mel ni une déclaration de guerre qu'il fait à l'état du du Sénégal alors yow ban appréciation nga am ci d'abord le dénouement de cette affaire la ak sur cette euh, sur cette tension euh, qu'il qu'il annonce d'abord man dama am position de principe par rapport a toutes les affaires judiciaires maanaam am na koo xamante ni defa ne sàkku nañ ko muy xale bu jigéen bi que diw moom a sàkku moom Adji Sarr moom Ousmane Sonko ñoo ko séq position de principe bi mooy benn bépp citoyen bu jàpp ni tooñ nañ ko am na sañ-sañ porte plainte dem ca justice ñu àtte bépp citoyen boo xamante ni tuumaal nañ ko ci nuñ koy waxee et présumé innocent jusqu'à preuve du contraire maanaam tant que daanuñ la dañu jàpp defuloo dara te ki ñu tuumaal am na ay droit am na ay devoir wareef ak yelleef am na droit li ñuy wooxe woowe pardon procès juste et équitable Ousmane Sonko moo ne woon moom ci boppam moom moo gën a yàkkamti ñu àtte procès am jël na décision de bañ a teewee procès bi loi yi aussi li ñu prévoir bu dee c'est une affaire criminelle ñu juger la nu ñuy nu ñu ko woowee en par contumace bu dee si c'est une affaire civile on te juge par défaut en l'occurrence fii affaire criminelle la dañ koy juger par contumace c'est-à-dire fekkewu ko li nga xamante ni man mënuma ci xuus et loolu di nga ko comprendre tout naturellement parce que parce que këru àttekaay bi dafa ne le premier juin laa war a joxe dogal bi premier juin soreetul nañu xaar ba ñu xam lan la juge bi wax su ko defee on pourra peut-être commenter alors da nga ne ça se passe entre deux citoyens hmm. est-ce que jàpp nga ne euh, politisation. maintenant am na benn am na benn aspect. balaa ngay ñëw ci loolu. da nga ne Ousmane Sonko décidé na jóge Ziguinchor ñëw Ndakaaru ci li muy woowe combat final xam nga loolu aussi acteur politique la gis-gisam la loolu aussi dañ koy respecté.